abonné wu leen ci Buzz Media TV la seen des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne abonnez-vous. dal leen jàmm Buzz Media TV la chaîne des patriotes bu leen fàtte abone dal di bës cloche de notification bi ngir lu ñu dugal yaay doon ki nga xam ne yaa koy njëkk a jotu jot nañu ab xabaar fële ci Ziguinchor ndaw ña dal ñuy génn di manifester jamono ji li leen naqari te leeragul ci seeni bët te nag waxaguñ ci dara muy. njiital Pastef Ousmane Sonko moom mi nga xam ne candidature am ba tey ji léeragul te ba tey ji ñuy wax ak yéen mi ngi ci kaso bi ñu dal di téye te moom li ñu koy toppeekati ñoom ndaw ñu nee nañu dara du ci dëgg jaay doole rek la ñoom nag nee nañu li ñu bëgg te muy jàmmi réew mi di jàmmi Sénégal mooy na ñu bàyyi njiital Pastef Ousmane Sonko waaye nag bëgguñu loo lay kase dañoo bëgg bu ñu ko libéré dal di officialiser ak candidature am atum 2024 ngir mu bokkoo ci ñi xëccoo réewum Sénégal ñoom dal di nañuy bari lool fële ci Ziguinchor la ñuy def nag taalu ñu xeexuñ waaye nag dañoo yor seeni drapeau di wax Ousmane Sonko nañu ko libéré ngir mu bokkoo ci ñi xëccoo réewum Sénégal loole mooy jàmmi réewum Sénégal du yi nga xamante ci ne ma nga jógee fële ci Walfadjri ñu taataanal leen ko bu leen fàttee di partagé ngir kat lu ñu dugal yaay ki nga xam ne yaa koy njëkk jot Boss Media TV